AFT waay bége waay sama gaay <laughs> siyaarati mbokk yi seetaan la 2STV ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen bégee di am mbégte ak kontaante di jàkkaarloo ak yéen ci la 2STV di jàkkaarloo ak yéen ci émission bi nga xamante moom mooy 12 13 li wax nañ leen ko mbokk yi émission la boo xamante ne nii luy luy doxal dëkk bi rek moo ko tax a jóg émission la boo xamante ne nii nu nuy fexee ba képp koo xamante ne nii yaa ngi ci Sénégal rawatina ndaw ñi ñu xam li nga xamante moom moo ñu war lool moom moo ko tax a jug ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax di leen begee te gis ngeen ni ma rafetee xam ngeen lu tax ma rafet te rako yaa fi jaar daba sama xarit bi barki sëñ Bamba doomu ndayu doomu ndayu kana kal la sax doomu ndayu ma ak Marème maa ngi leen di siyaar borom rafet ne li mbaaw maa leen di béggee bu baax a baax kooku roqi la moo ma def nii maa ngi koy siyaare bu baax a baax mbokk yi di leen béggee di leen siyaare bu baax a baax ci alxames ji xam ngeen ne tey moom mooy numéro bi mujj ci li nga xamante ne nii moom mooy 12 euh, 13 man ak yéen mbokk yi ñu fas yéene ànd diggante midi jàpp une heure maanaam midi jàpp benn waxtu ñuy waajal li nga xamante mooy xéwal gi fekk na ñoom roqaya doomu nday Marème ak ak Fatim boobu fekk na mi ngi toog jàkkaarloog man di ma seetaan Marème ak Fatim ña nga ca Rafanel Mbaaw toog di ma seetaan maa ngi leen di béggee bu baax a baax mbokk yi noonu la demee ci 12 13 di ci profité di nuyu équipe technique bi nga xamante ne nii ñoom laa àndal Alpha Bacili moom moo may xool ci bët ne nii ci laa di xoolee ma koy siyaare bu baax a baax di siyaare sunu woy jur koy ñaanal yàlla sunu borom defal ko jàmm defal ko tawféex di leen béggee bu baax a moo gisee sama xarit la sama doomu nday la moom moo nekk ci bët bii nga xamante ne nii ci laa di xoolee moom ma koy siyaare bu baax a baax caméra robot maa ngi koy nuyu mu nekk nii ci bët bi ngeen may xoolee caméra robot la <laughs> loolu maa ko loolu moom maa ko cadré teg ko noonu maa ngi ñëw après ci caméra robot bi mais maa ngi leen di siyaare di siyaare sama doomu nday Bucca bu caa doomu ndeyu mbasaa la mbasaa maam Masamba Modou Moussa Fall borom Ndiassane la mu def ca Ndiassane ma nga fa tege ba tey ah ñu ngi koy bëggee bu baax a baax di dugg ci régie bi soxna Ngaay Bira maa ngi koy bëggee bu baax a baax Abel ak Aliou ñi ngi ci biir maa ngi leen di siyaare bu baax a baax a baax di leen bëggee di dugg fële ci régie bu mag ba di leen nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax mbokk yi di kontaan ci yéen di am mbégte ak kontaante di jàkkaarloowaat ak yéen mbokk yi bu baax a baax tey nag waxtaan wi actualité la tey waxtaan wi mooy li nga xamante ni am na mbokk yi tey dañuy waxtaan ci façon bi nga xamante ni noonu la ñuy politiquer fii ci Sénégal dañuy waxtaan ci façon bi nga ne ni noonu la politiciens yi di def fii ci Sénégal te loolu moom mooy li nga xamante moom mooy waxtaan wi ci biir loolu mbokk yi am na élément boo xamante ni ni waa régie kale ko boo xamante ni am na bu yàggul dara ma xew ci assemblée nationale li nga xamante ne ni loolu la fa député yi def muy mbir moo xamante ni ni kenn rafetlu ko ma bëggoon ñu ànd ñu seetaan élément bi tuuti après ñu duggaat mbokk yi ñu yeggali li nga xamante moom mooy waxtaan wi laataa ñoo dalal suñu invité mu ñëw incha allah ñu waxtaan ak moom mbokk yi ay Amen. assemblée nationale mbokk yi gis ngeen loolu muy coow lu doxoon ci diggante ay député lan mooy rôlu député lan moo waral député dañoo wax ñu ne assemblée nationale la assemblée nationale ci olof ñu tuddee ko pencu ndaw réew mi ñi nga xamante ni waa réew mi ñoo leen choisir yóbbu leen foofu ngir ñu toog fa di leen waxal wala di leen jàppale ci seen àq ak seen yelleef di fexe wax li nga xamante ni moom moo arrangé population bi loolu moom mooy li nga xamante ni mooy rôle député li nga xamante ni moom mooy rôle député mooy jéem a fexe ba nga xamante ni ñoom ñoo leen fa teg lépp loo xamante ni métit la wala jàngoro la boo xamante ne ni bu nekk ci ñoom ñu jëm koo saafara loolu moom mooy li nga xam mooy rôle député rôle député ci assemblée nationale mooy li nga xamante mooy fexe ba askan wi nga xamante moom moo la fa teg ñu kontaan ci yow waaye rôle député nekkul di xuloo ak di xeex te seetlu nañu fi ñu toll ci Sénégal façon politique bi nga xamante ne ni moom moo fi am politique bi am Sénégal mooy politique gu violence. politique bi am ci Sénégal mooy ku ci nekk di jéem a yëkkati wax bu bon bu ñaaw di ko teg ci sa kaw ki nga xamante mooy sa adversaire politique ku ci nekk yaa ngi jéem a fexe jël ay mbir yoo xamante ngir takkal sa adversaire politique pour lan pour ay poste poste yooyu est-ce que boo leen ko amee tey jii nii di xalaat population bi ñun dañ leen a jël tànn leen teg leen suñu assemblée nationale ngeen ñëw ba assemblée nationale nekkoo leen fa lu dul xeex xuloo ak tàccu est-ce que yéen war ngeen a nekk ay député est-ce que yéen tey jii war ngeen ñoo teewal foofu nga xamante ne moom mooy ca pencu ndaw réew ma déedéet waroo leen fa toog parce que fii teguñu leen fi pour ngeen di xeex ak di xulo ak di tàcconte ku ci nekk di jéem wan sa morom ni maa la dàq maa la gën a rëy te argument amul mbir yi bu ñu leen tegee foofu ay argument moo tax ñu teg leen fa teguñu leen fa ngir bëgg kenn ku ci nekk ci yéen di jéem a def ay mbir yoo xamante ne nii maanaam ngir ja sa leader politique xam ne yow mii kat jàmbaar nga ci liggéey bi ngay liggéey déedéet askan wi moo tax ñu teg leen ci assemblée nationale Macky Sall taxul ñu teg leen national nationale Abdoulaye Wade taxul leen assemblée nationale Idrissa Seck taxul ñu assem ñu teg leen assemblée nationale li tax ñu teg leen assemblée nationale c'est parce que dañoo yaakaar ne yéen ñi kat ay ndaw ngeen yoo xamante ne nii ku yaakaar ci yéen wala ku leen jël ba teg leen fi nga xamante mooy ca pencu ndaw réew ma di ngeen leen défendre di ngeen wax loo xamante ne ni tey jii ay voté ay luwa yoo xamante ne dina tax tey ñu ne kat Sénégal assemblée ba ña ngay liggéey liggéey bu baax mais nekkee woo leen ci dul xuloo ak ak tàcconte ku ci nekk di wax wax bu ñaaw est-ce que kon yéen war ngeen a toog foofu est-ce que war ngeen a toog ci sunu assemblée nationale pour ñun yéen nekk loo leen ñu fa seen bopp ngeen fa nekkal ndax xeex ak xuloo ngeen fa nekkee numéro bi gars yi dañ koy affiché léegi su ko defee yéen tamit euh, téléspectateurs yi ngeen dugg joxe seen xalaat ci waxtaan wi nga xamante ne ni moom la ñuy waxtaanee tey muy rôle bi nga xamante moom la politicien war a joué ci biir société bi role bi nga xam moom la député yi war a joué fële ci biir assemblée national assemblée nationale nekkul penc moo xamante ne dañ leen faa teg pour ngeen di tàccoonte encore une fois numéro bi mi ngi noonu affiché wu mbokk yi am na benn élément boo xamante ne ba tey ça parle de politique boo xamante ne li nga xamante moom moo amoon assemblée nationale loolu mooy répercuté wu rek ci biti ñu ànd ak yéen ak waa régie bi mbokk yi ñu dem seetaan élément boobu ñu ñëwaat. rien amul amul jarul commentaire xool leen yéen a ko gisal seen bopp li am ci instance yu mag ya mooy répercuté wu ci suuf li am ci dogalukaay yu mag ya mooy jàll ci suuf politiciens yi gestes yi ngeen di def moom la xale yi di xool di ko répété xoolal fii lii mel ni champ de bataille lii mel ni ñu nekk ci guerre te lu ñuy wax ñu ne dañuy def politique lan mooy politique lan mooy politique politique balaa nga koy def il faut nga xam sax définition wu politique moomu politique mais Sénégal dañuy def ay mbir yoo xamante ne nii teguñu ko teguñu ko fenn amuñu daray argument xoolal lii nekk ci biir État ñuy waxtaan lépp wala ñuy waxtaan ngir jëmale seen parti kanam wala ñuy waxtaan ngir jëmale réew mi kanam fii lay mujj tey bu ko waa làmb ji defoon de wax ji bari de bu ko waa football bi defoon wax ji bari de. mais waa politique bi ñoo koy def kenn du ci wax ndax lan ndax lan loolu fu ngeen ko teg Sénégal balaa seen xol di sedd rek mosen yi tàq ci politique ñu dóor ay doomu jàmbur ay lacrymogène fii nii ngeen gis xale yi di xeex di sànnante da ngeen fay gis benn doomu ministre da ngeen fay gis benn doomu président da ngeen gis benn doomu député déedéet doomu ñun baadoo baadoola yi la ñuy jël teg leen ci mbedd mi exposé leen rey leen dóor leen ay bal dóor leen ay lacrymogène ku ci gaañu tey jii nii boo fajul sa bopp kenn du la faj kenn du la jël en charge est-ce que tey jii yéen war ngeen a diriger lii nga xamante ne nii ci la ñuy jéem a loree ay xale est-ce que loolu wareef la est-ce que xale yi ñoom xam nañ ñoom ñooy ñan est-ce que xale yi toog di sànnante ay xeer xam nañ ñoom lan lañ war a doon ëllëg ku ci nekk jël chaise sànni ko sa morom tey jii bu ko billaay bu ko bu ko buñ ko defoon ci làmb ji bu ko waa làmb ji defoon ci suba ga nga dégg ñu ne préfet jël na dogal nee na arrêté nañ li nga xamante mooy manifestation lamb yi dootu fi am bu ko waa football bi defoon ñu ne préfet jël na dogal tëj na stade bi léegi mi ngi ni politiciens yi ñoo ko def na préfet jël dogal ne campagne do am ko def du ko wax du ko def parce que affaire bi affaire politique la ni ñuy politiquer Sénégal moo salté ni ñuy politiquer Sénégal moo ànd ak violence politique gu Sénégal léegi boo mënul wax bu ñaaw boo mënul xeex boo mënul sànni xeer boo mënul xasante boo mënul wax non kenn du la jël doo bokk sax fi ñuy fi ñuy xalaatee affaire bi politique c'est l'art de bien gérer le quartier wala c'est l'art de bien gérer la société wala c'est l'art de bien gérer la cité nit ki nga xamante ne dafa choisir ngir def politique dafa war a am ay argument yoo xamante ni tey kat bu ñëwee taxaw tak bu waxee jeunesse Sénégal ñëpp àndandoo na kii kat programme bii mu teg wala lii mu wax gis nañ ci ay argument yoo xamante ne war nañ koo mën a jël teg ko ci suñu dëkk ngir mu diriger ñu wala war nañ ko mën a jël boole ko ci instance de décision yi mu bokk fii ñuy jëlee ay décision mais fi mu toll boo boo bokkul ci ñuy indi vingt cars bokkoo ci ñuy indi deux cent personnes bokkoo ci ñuy yuuxu bokkoo ci ñuy tàccu kenn du woo ñi nga xamante ne ñooy les diplômés ñi nga xamante ne ni ay borom xam-xam la ñu mën li nga xamante ne loolu la ñuy def jàng politique di ko di ko mën duñ leen sax boole ci loolu ñu dàq tàccu la ñuy jël ñu dàq fecc la ñuy jël. ñi dàq yooxu dàq xeex ñi ëpp violence la jël indi leen est que loolu politique la loolu di politique politique dafa war a rafet politique dafa war a sell politique bu ñu koy def dafa war a doon loo xamante ne nii kat tey waa quartier waa réew mi dañ ci dañuy gis seen bopp ci loo xamante ne nii man la sam waay day mën a doxal seen dëkk mais lii ngeen def amu ci lenn lu mën a doxal dëkk bi ay député yu nekk assemblée nationale di xeex doxalul dëkk treizième législature bi mooy bu mujj bii bi ñu voté bi ñu mujjee bi génn avant législa législative yi di ñëw benn projet de loi wala benn loi voté woo leen ko ñu ne ñu ne législature boobu mooy bi gën a nul wala mooy bi gën a bon ci histoire Sénégal tey bii ñëwaat di defaat loolu kon ñun fu ñu jëm moo ñun fan lañ jëm moo ñun tee ñoo yooxu laay lay la laa ay waay lii la la politiciens yi ngir yàlla ak yonent bi xam leen seen cër politiciens yi xam leen seen bopp xam leen ni yéen teguñu leen ci dëkk bi pour ngeen di xeex ak di xuloo da ngeen ñoo war a jàppale Sénégal ndax au moment où nit ñaa ngi toog lekkuñu au moment où xale yi ñu ngi ci ay jafe-jafe amuñu ay liggéey au moment où nit ñi ñu ngi ci kaso bi di tëdd ay peine yoo xamante ne ni kenn xamul nu mu toll au moment où nit ñaa ngi ci hôpitaux yi di dee di rey di dee ndax amuñu ku leen jàppale yéen ngeen toog ci seen ay bureau yu climatisé bu ngeen fa génnee dem dajaloo toog xasante saagante est-ce que ñun loolu moo tax ñu teg leen fi loolu taxu ñu teg leen fi dañ fee teg ngir ngeen di lijjanti suñu ay problème mais teguñu leen fi ngir ngeen fii nekk di xuloo ak di xeex loolu amul sens loolu baaxul numéro téléphone bi sonn na 88 la kooku def 628 14 13 mi ngi ci biir 12 13 salaamaaleykum. maaleykum salaam. maa ngi lay siyaar ku baax ki waaw maa ngi lay ziar bu baax. yaa ngi waaw maa ngi am waa. tur bi nan la ak foo may woowee. Euh, Ibrahima Balla maa ngi lay woowee Kaolack. yaa ngi may woowee Kaolack. Kaolack waaw. ñu ngi waajal a ñëw Kaolack sax fan yii incha allah. waaw waaw incha allah waaw. incha allah mais yaa ngi dégg waxtaan wi. waaw maa ngi dégg waxtaan bi neex na trop. Mhm, lu ci sa xalaat. waaw dama ci bëggoon yokk benn affaire rek. surtout que des fois dañuy wax euh, dégâts yu am rek dañ naan politiciens yi ñoo ko waral. Mhm. man dama man dama ko contre quoi. parce que bépp politicien doo xool loo xam ne ni yow moom nga bëgg mu jëmal réew mi kanam nga ci indi ay problème quoi. man pour sama gis-gis ay violence mhm. waa léegi comme supposons tey tey jii. Mhm. parti bu nekk. Mhm. danga am say nit. waa da am say nit quoi parce que nit tamit du nekk njiit ba pare di jël ñenn yi di leen wax ne lii yàq leen ko wala lii yàq leen ko noonu man dama gis ne opposition bi toujours. Mhm. problème bi si ñoom la. Mhm. toujours problème bi si opposition bi la. loolu nga gis yow. waaw man loolu laa gis man. Mhm. waaw. ok parce que soo xoolee dégâts yi am yëpp soo xoolee duñ ne parti au pouvoir mooy def problème bi ak problème bi non toujours opposition bi ñooy bëgg di xeexal ak parti au pouvoir te loolu dafa mënta nekk. mais tamit bu opposition bi bëggee def ay mbir waa parti au pouvoir wala waa nguur gi tere leen ko nag. non xam nga des tere du Uh-huh. parce que fii dañ naan Sénégal la taxi yi ñu fi. Mm-hmm. waa taxi yi ñu ngi fi. Mm-hmm. lépp loo gis rek nañ ko tënk ci taxi yi xool lan la ci wax ñu def ko. Mm-hmm. waaw man nag euh, je remercie de passage maa ngi nuyu sama mbokku waa Nioro yëpp. waaw di leen bëggee di leen wax ne seen doom la Ibrahima Ba. Uh-huh. responsable politique. maa ngi lay bëggee. waaw ñu lay bëggee merci waay. kontaan naa ci yow Ibrahima Ba maa ngi lay bëggee bu baax a baax di bëggee sama rakk ji Mbisaan ak Mbaar kooku Serigne Mbacke Ndiaye baayam maa ngi koy nuyu bu baax sama xarit la sama doomu nday la moom moom moom bokkul ci xale yi nga xamante ne ni dañuy def violence am na ay journalistes yoo xam violence ci la ñuy dox Coro Mbaar ana Ibrahima Balde Ibrahima Balde mi ngi fi di violent booy boobu teg sam sax boo ko liiree xam ni booy bi il de violence booy boobu. maa ngi koy béggee nag sama xarit la deful daray violence sama doomu nday la maa ngi koy béggee bu baax a baax kooku maa ngi koy a Ibrahima Ba moo mu wootee diwaanu Kaolack maa ngi koy siyaare bu baax a baax a baax di kontaan moom li mu wax am na solo nee na des fois dañuy jàpp ni waa ngur gi ñoo koy def te du nguur gi opposition bi dañ ci am cër nguur geeg opposition bi ñoom ñëpp ils font la politique ñoom ñëpp ce qu'ils veulent mooy diriger li nga xamante mooy suñu réew mais de quelle façon est-ce que ci ko war a diriger est-ce na ci li nga xamante ne ni lu mën a doxal suñu politique la vingt 628 14 13 kooku mi ngi ci biir 12 13 salaamaaleykum. waa maa ngi lay siyaare. ak Serigne Bamba kontaan naa ci yow. maa ngi lay maa ngi lay bëggee tur bi la. waaye kii de Maaou Diop la mi ngi lay woowee diwaanu Kaffrine. diwaanu Kaffrine maa ngi lay bëggee naka foofu. sant dama bëgg nag nga jàpp sama tur bu baax est-ce que man dama lay topp. yow da baax. Serigne Bamba yaa ma gën yow mi taxaw ci télé bi di wax lu baax li di wax lu rafet li di wax loo xamante ñëpp na ci jëlee ndeysaan yaa baax rek. kenn du yow mais nag euh, taal bi sëñ Tuubaa yow nii rek nga mën a mel. ndeysaan maa ngi sa ginnaaw loo wax ci thème bi ak yow loo ñu ciy dollil. non liñ la ciy dolli mooy lépp yaa ngi koy wax te lépp rek euh, wax nga ko. Mm. xam nga lan moo am ba des. Mm. ñun Sénégal ñun ñun Sénégal man dama man jeune laa de mais dama naan est ce que ñun ñun est ce que ñun ñun ñun ñun jikko ñu ci ñun ba léegi. Mm-hmm. parce que bu ñu ba yow fi nga nii yow chaque jour nga dégg ku ñu rey chaque jour nga dégg ku rey jëkkëram chaque jour nga dégg ku rey jabaram bu ñu demee ba ñaan ñooñu jiite sax ñoomu neen di xeex di xuloo léegi après ñun ñun ñun nan lañ war a comportement dëgg la tey après kon ñun après nan nan lañ mën a mel ak Sénégal liñ ko xamee woon Sénégal rek réew jàmm Sénégal réew mu baax réew mbaax mhm. tey ku ku maanaam turu baax ngay dégg yëpp Sénégal la fekk baax dëgg la mais kon lan moo tax léegi ñu bëgg a jël suñu jikko yi changé ko mel neneen ñu xam kenn xamee wuñ ñu woon mhm. ah, léegi ñu dem ba fi mu ne yow lépp paccaxoo lépp jaxasoo waaw léegi après ñun ñi nga xamante ne ñoo ñu war a defal ñi nga xam ne ci ñoo ñu war a ay conseil ñi ne tey ñoo war a nekk exemplaire suñu kanam tey ñu dem ba ñooñu léegi après ñoom bëgg a dund leneen lu bokkul ak ñun liñ gëm wala ñu bëgg a dem ba mel ni ñun après ñun nan la ñu war a def dëgg la waaw ah, kon dañ seedaa suñu bopp waxtaan dëgg la lépp loo si àdduna dañ koy waxtaanee dëgg la li gu wolof Njaay di wax réeroo amul ñàkk waxtaan am waxtaan affaire yi li coow li bëri bëri bëri bëri bëri kii jiite réew mi Sénégal lay dëkk Sénégal lay nekk te sénégalais lay doon ndam li ndamu Sénégal la bu dul bu leneen Sénégal ko kon nag ñaan suñu jàmm bi suñu Sénégal mu saawaan baawaan dëgg la li fi mag ñi bàyyi woon muy woy wu rafet di ngëm rafet nañ fexe ba lool bu mu naax saay nañ ko téye sàmm suñu ngor sàmm suñu fulla ak suñu fayda rafetal jikko yi rax xol yi yéenante jàmm loolu yoon dañ xam ne ñun ay jullit lañ kët nag dëgg la tey beneen réew yi nag daanaka ñu bëgg a mel ni ñoom kon dara nañ dal nag kon nañ seeraat suñu bopp ser delloo si xel yi xam ne àdduna amul solo àdduna bi jeex na ba pare foofu nga nekk taxaw noonu may jaaxaaloo ak yow. Mhm. am na ñu fi nekkoon am na ñu fi nekkoon nekkatuñ fi tey yaa ngi fi te incha allah da nga fi jógee mais dañ lay ñaan boo fi jógee yàlla na nekk. amiin bu rafet ci barke Seydina Ahmed. amiin waay. barke Serigne Touba kon nag daal ñu ngi leen di jaajëfal di la encouragé nag. jaajëf li nga li ngay wax nii. boo ko dégg de mais téere ngay wax. dëgg la barke Serigne Bamba di leen ñaanal di ñaanal seen njiitu groupe bi suñu borom defal ko lu kawe njort di ñaanal euh, soxna si ma jokkool sàng ni ba mu jàllale ma maa ngi koy bégg bu baax di ko ñaanal gudd fan ak wér ak tawfeex di a a baax franchement daal kontaan nañ di kontaan ci yow nag bu baax a baax kontaan ci yéen bu a maa ngi kontaan ci moom bu baax a baax macha allah li mu wax am na solo njàngat rek jàng lii mu wax war nañ ko xoolaat sax am yu ayu am solo yuñ ci jàngat kaddu yu am solo la xoolal li mu wax fii ma nekk nii dëgg la am na ñu fi nekkoon doon def lii tey dem jóge nañ fi dem feneen man tey maa fi toog di def lii ëllëg mën naa fee jóge nekk ci leneen keneen ay ñëw mais na rafet rek bu rafetee rek li ci kanam day baax ndax mbir bu ñaawee rek dara mënatu koo doxal mbir bu xasee ñaaw rek dara mënatu koo defar kon xalaat bi nañuy toog di pencoo benn nen bu ko mbooloo bokkee kenn du ko baxal déedéet dañ koy may nees ku nekki càpp ci yoro yoro sow sama xarit bi moom laa invité ci kanam tuuti dina yegg si léegi rek ñu jël ki nekk ci ligne bi mbokk yi après ñu yeggali waxtaan bi asalaamaaleykum maaleykum salaam maa ngi lay siyaar soxna si kazalika noonu yaa ngi am jàmm yëkkatil baat bi tuuti may di seetaan noo tudd Mati Fall Mati Fall foo may woowee marché Tilène marché marché Tilène ana ñooy fi. mati mati mati naka til leen mbaa mi ngi neex. oh waaw mi ngi neex moo du li wax laa doon bëgg a feer ni. bàyyi ci Serigne Touba. Mhm. Mor Mbaye réew mi amul dara. Mhm. xoolal ñun dañuy taqale di liggéey. Mhm. xoolal osan bi li mu yàqal. mënuñoo am dara. ñii seen parents seen waajur yi wàññeeku ñu leen di taqale. amatuñu sax bàyyi ci li may wax sama xol la ne wallaahi azim amatuñu sax loo xamante ni da ngay soxla sax faj ko. dëgg la. Modou Li ba kañ. Mhm. ñi nekk si ñi nga xamante ni nag seen seen pap ay patron lañ ay patron la ñuy doon. dëgg la. ñi nga xamante ne ay baadoo lañ ay baadoo la ñuy doon. ba borom doole yay dimbalante seen biir. waa léegi nag am réew mi. moo ma jaaxal. Mati Fall mi ngi woote diwaanu Tilène ñu ngi koy bëggee bu baax a baax di nuyu waa Tilène Gueule Tapée Médina. ñu leen di siyaare bu baax a baax di dugg ba biir maintenant di nuyu suma mag jooju Assane Diop maa koy siyaare bu baax a baax di ko bégee ak doomu nday magu Youssouf Fall maa ngi koy siyaare di nuyu waa kër gi yëpp ah maa ngi leen di bégee bu baax a baax di kontaan ci yéen mbokk yi ba tey numéro bi mi ngi noonu affiché wu mais waa régie bu ngeen ma may mënee may benn clip benn clip ñu foo tuuti rek après ñu yeggale ci waxtaan wi mbokk yi kooku Ablaye Mbaye la kontaan ci moom bu baax a baax gis ngeen clip boobu Ablaye Mbaye ñu koy ñaana yàlla sunu borom xare ko àjjana gis ngeen wax am solo yi mu wax ci réew dëkk àndul ak violence dëkk àndul ak waxante lu ñaaw dëkk àndul ak defante lu ñaaw suñu mag ñu baax ñi fi nekkoon kenn waxante wu ci ak sa moroom lu ñaaw bu ci kenn doon waxante ak sa moroom lu ñaaw tey jii ñun bu ñu màggee wala ñu judd ñëw du ñu sax séq jàmm waaye lu baax lañ doon defante boo demee ca kër maam Baay Laay tout si Cheikh Mbacke Laay ngi fa nga dem kër maam fi maam Abdou Aziz wala kër maam Alaaj malik nit a ngi fa koo xamante ni nii Touba la jóge nga dem Touba nit a ngi fa koo xamante ni Ndiassane wala Tiwaawan la jóge nga dem Ndiassane nit a ngi fa koo xamante ni Touba la jóge yooyu yëpp ay mbir la yu rafet yoo xamante ni nii moo taaraloon sunu réew mais léegi ñu ngi koy bëgg a yàq bu njëkkaan maam Abdou Aziz Sy bu njëkkaan kilifa diine yu mag yi fi nekkoon bu politiciens yi musaana def yenn erreur yi dañ daan toog génn ci biti yëkkati ay kàddu delloo siwaat askan wi xamal leen li nga xam moom mooy seen rôle tey loolu ñu ngi koy xaar ci ñi nga xamante ñoom ñoo suñu ay kilifa diine ñi ngi ci nag ci loolu lañ nekk di ñu ci doxal di ko di ko di ko dox muy lu am solo mais ñu ngi leen ciy gën a xaar ndax mbir yu mel nii bokkul ci lu mën a doxal réew ab assemblée nationale ay député waruñu faa nekk di xeex wala ñuy xuloo ma ci profité di souhaité maa Khady Diop taalibe Baay Laay bi ma koy souhaité joyeux anniversaire yàlla defal la jàmm yàlla defal la tawféex dundal la teral la ci barki yonent bi yàlla sunu borom sàmm la aar la làq la fu yàq yeegul maa Khady Diop maa ngi lay béggee bu baax a baax se loolu se de la part de mon camarade Papis Diegane moo koy béggee bu baax baax maa ngi lay siyaare bu baax maa Khady Diop am na invité invité boo xamante invité bu mat invité la Yoro Sow muy koo xamante ne kenn dootu ko présenté ci kër gi Yoro Sow ndaanaan la boo xamante mi ngi ci kër gi di fi liggéey mais nit la boo xamante mi ngi ci beneen domaine boo xamante ni nii gis ngeen ni nga xamante ne noonu la ciy doxee muy ku am la ku bëgg li muy def ma koy dalal bisimilah Yoro Sow ndeysaan sama xarit bi mon ami mon frère. yo que. diggante njool man il faut kon ma arrière. non yor kaay taxawal yor non yor yooyu yëpp bu ma ko ci wax. suñu niveau niveau taay caméra bi mën a tolloo bu dul loolu bu ma ñëwee nii. te ma mbëkk air bi. te bu ma mbëkkee air beeg yooyu noonu ngaay ma mbëkk air nii dina baax. yor yow loo may siwalee ci dëkk bi naan dama gàtt nii laa ilaaha illallaah man gàtt ma ne moom moo njool moom moo njool moom moo njool mais maa ngi lay siyaare bu baax. waaw mais bëgg naa la kontaan ci yow. maa gën a kontaan ci yow. yaa ngam jaam jàmm. Euh, di bég lool lool lool. lool ci jàkkaarloog yow. ndeysaan euh, fekk la fii. Mhm. ngay ngay ngay def liggéey bi ñu lay observé aussi. Mhm. nga koy teg ci yoon douze wax dëgg yàlla euh, gars yi tiitoon nañu mais kenn tiitatul. ah lu ñuy tiit man tiitoon na ah waaye tiitatuma. tiitatoo sa xel dal na. sama xel dal na macha allah. te yaa ngi koy teg ci yoon di ko teg ci actualité. tey jii li nga génn nii muy assemblée. Mhm. nga xam ni cër la boo xamante ne bi nii Sénégalais yëpp a ko bokk. Mhm. donc je pense que ni pencoo la. Mhm. moo taxoon ñu teg ko fa waaye du du du xëtoo. déedéet du xëtoo du mbéjoo. déedéet déedéet mais pencoo la donc bu ko bu ko occidentaux yi gis du rafet. investisseur yi war a ñëw pour Sénégal. ci Sénégal. nañ mhm. ne déjà seen assemblée bi ànduñu. Mhm. Euh, bailleur de fonds yi bu ñu bëggee dugg tamit dinañ ni ñii ànduñu. Mhm. donc image boobu daal lay xaw a yàq tuuti ci tourisme bi aussi. daal du koy bëgg ci ci ci. ci assemblée bi ci Sénégal sax laay wax. loolu am na solo. macha allah yoro mi ngi doon wax léegi lu am solo mu ne. pencum assemblée nationale pencoo lañ fa war a nekkee. Ah. moo waral ñu de ko pencu ndaw réew mi. kon foofu waxtaan lañ fa war nekkee mais macha allah fi mu dugg see am na solo trop tey jàll na fi nga xamante ne nii loolu lañ loolu lañ ko bëggoon a njëkk a laaj macha allah muy lu am solo mais damaa xëy jot information yoro dañ la sàcc. waaw loolu xaw na mu terroriser nag dañ ma sàcc. c'est vrai kon dañ la sàcc. per sec. billaahi damaa jommi jëm. lu xew. man dama tàmm di veiller parce que artiste guddi gi lay liggéey guddi gi souvent 4 heures du matin la ñuy ma dallu après jur julli tëddaat bu ñu amul fu ñuy dem mu ñamee fu ñuy dem ñu dem mais démb dama tëdd ba 4 ba dama veiller ba 2 heures demi demie ma tëdd mais sama néeg comme kër gi yëpp dama koy tëj. Euh, et puis jamonoy tàngoor lañ nekkoon du ñu tëj bunt bi depuis boobu léegi duñu ñu tëj mais nag man maa jékki-jékki 5 heures du matin 2 heures laa tëdd 5 heures du matin soxna si yee ma ne ma yaa jël téléphone. ma ni ko ban téléphone mu ne ma sa téléphone bi nga tegoon fii. ma ni ko non non non téléphone bi man nee naa la après yow boo gëmmentoo arrêté rajo bi. mu ne ma non non ma jug xool xool xool gis ma yéeg ci kaw fekk buntu euh, kii bi ñu tijji ko. et puis mu yóbbu valeur presque yóbbu na ñetti téléphone ah. ak euh, presque cent trente cinq mille francs mais man loolu jaaxalu ma li ma jaaxal mooy naka la nit mën a amee sañ-sañu te dugg kër jàmbur guddi guddi muy nelaw nga waaxu ñëw ba tiim ko te tiitoo te tiituloo jël li mu teg ci kanamam jël li nga xamante ni bii waxuma la dara mais tey dama waroon a yónnee ay mel waroon a recevoir ay mail mhm. waroon a nekk di liggéey liggéey maa ngi xëy suba ba léegi nekk ci coono joo xam ne jim ma teg man bu ma ñaanoon téléphone bi ma dindi sama yooyu noonu ba pare jox ko téléphone bi mhm. moo ma gën a lim ma xañ tey mhm. mu nekk loo xamante ni bii nii aussi xaw nañu terroriser parce que li tax mu xaw ñu terroriser mooy le fait que inconnu ñëw dugg sa kër ba tiim la maa ngi tëdd sama doom boo xam ne mat amagul deux mois mi ngi tëdd bébé Mohamed te tey jii nii. kooku bu yóbbuwoon aywa ji astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah heureusement laa njëkk ay mbir la yoo xamante ni dañ ci war a jug. ay mbir yoo xamante ne nii ñu yor suñu kaaraange dañu ci war a jàppale parce que li ngay wax du foofu kase mhm. bari na ay nit yoo xam dañ ñuy woo mhm. moo damaa bëgg nga waxal ma lii ci télé bi dëgg la damay tëdd ba guddi ñu dégg ci koñ bi ay nit yu yéeg ci étage yu jàmbur dëgg la te loolu ñi la koy def dañ lay xam dañ lay xam dañ xam parce que euh, euh, sàcc du dugg fukk mukk fu mu xam-xamul uh-huh. nit ki balaa muy dugg dina calculer ni kii kat yaa ngi dégg fii fii ak fii ak fii kay nii lay mm-hmm. demee mm-hmm. te Euh, sama petit frère moo dégg bruit bi moo tax mais kon doon na gën a metti noonu. waaw doon na gën a metti noonu parce que man moment yooyu maa ngi soog a jàppanteeki nelaw. Mm-hmm. yéen doo daw journée bi yëpp. ba ñëw dang dangi bay bëgg a dee mm-hmm. ñëw. Mm-hmm. donc li ñu tax nag ñu ciy wax mooy aussi pour. Euh, lancer benn appel sénégalais yi aussi dëgg la da ngay nekk sa kër dafay tàng dafay kii ak yooyu mais ñu ni def nañ erreur mais erreur bi ñu def mooy tëjuñu buntu néeg bi. Mhm. mais je pense que ni nit ki tamit bu nekkee biir këram. tëj buntu këram tëj ay buntu véranda am wax dëgg yàlla. buntu néegam jarul ko buntu néegam tamit wax dëgg yàlla. Euh, kaaraange war na ko mën a may mu bañ ko tëj aussi. vraiment yaa ngi dégg. Euh, loolu moo ñëw si xaw a terroriser te aussi tamit ñuy ragal lu mel noonu parce que nit ku mel noonu mën na ñëw yàq la. Mhm. mooy fa lay xalaatee. nit ku la fekk ci ay nelaw. mën na la def lu nekk mën mm-hmm. na la def lu nekk. imaginer wu comme li nga wax ni Mara day taali dëgg la Mara taali bu jëloon xale bi ñun fan lañ jëm. di nga yàq déjà liggéeyu. papa yi xale bi papa ji xale bi. yaayu xale bi yaayu xale mbokki xale bi. dëgg la te du la amal benn njëriñ parce que après la nga koy defe ji Mara day taali. moo waral ngay dégg ñu naan sàcc nañ xale yi sàcc nañ nangam mais li ma bëgg a wax rek mooy ñi sàcc affaire bi xam ni du ñu sori. Mm-hmm. li tax du ñu sori mooy portable bi képp ku jënd Camon X Pro. mbaa nga jënd Samsung mbaa nga jënd yaa ngi dégg beneen portable au niveau de banlieue bi xoolal bu baax li ngay def parce que email bi mu ngi ñu enregistré et dañ ko yóbbu ci force de l'ordre yi dinañ ko kalaame tamit fépp fu ñu ko war a kalaame parce que données yi ci nekk moo ñu gënal fuuf fuuf fuuf njëgi téléphone bi donc loolu nag nekk na loo xamante ni bi ni bu Sénégal demee ba nga xamante ni bi yow Euh, amatuloo sécurité. ci sa biir kër sa biir nekk ses même. donc je pense que ni loolu doy na waar. ñu ciy profité di wax tamit képp ku nekkoon suñu am di jàmm te am suñu contact. aussi mu profité lancé waat ñu ko. waaw euh, ndax ñu mën a amaat contact yooyu noonu yëpp. di la remercier tamit. ci mais non loolu mooy yoon yow ñoo far mais waxtu wi moo ñu xaw a xoj. Mhm. mais fi ma bëgg ñu daanelee fa. mooy projet bi. waaw foo toll. horizon 2019 horizon 2019 dama koy dégg. dëgg la fu mu toll. waaw yegsi na xam nga. et ça parle de quoi. ça parle des élections. de politique pas politique. ok parce que ça parle des élections pas politique. Mm. ça parle pas de politique. ça hmm. parle des élections. Okay. que souvent nit ñi def amalgame nit ñi dañuy politique. non non non élections yi ni mu déroulé naka lañ ñu ngi démarré ci parrainage. après parrainage yu dem yaa ngi dégg lépp ci ci ci kaf ci foo ci ree mhm. en même temps yee sénégalais yi mhm. vote jarul xuloo comme li ñu gis ci stade bi bu série bi commencé daw ki ko naroon a def dina ne ah wax dëgg yàlla lii ñoom yoroo wax wax dëgg yàlla jaralu ma dem di sànni ji xeer mm-hmm. lii ñoom tan bombe wax jaralu ma dem di def ji loolu mooy suñu objectif mm-hmm. ba nga xam te ne bi nii attire parce que neer yi ñu ngi commencé tàng mm-hmm. donc je pense que ni ñun en tant que acteur de développement en tant que des comédiens aussi bari na nag ñu koy xeex parce que dem nañu ci ay établissement yu bari yaa ngi dégg yenn ONG yi nga dem ba am seen accord ñu war a ànd yow nga ku déggaat ni am na ko jaar ci suuf ne leen non lii politique laa ak noonu te xamaguñu dëgg-dëgg continue bi li fa nekk. Mm. àdduna jarut lool. doomu aadama bi. Mm-hmm. Euh, du jël lu dul wërsëgam. wallaahi munul lekk lu dul wërsëgam. yàlla bind na lan ngay am. ñaata fan ngay juddu. Euh, ñaata fan ngay dund avant que ngay dee donc je que ni jarul yàq doomu aadama. Mm-hmm. di dem di yàq tey jii ma demee ci madame Dia di ko moo Moodu Mbay lii Moodu Mbay lii. Mm-hmm. loolu amul sens. yaa ngi dégg donc nanga Moodu li ko yàlla war a defal da ko koy mm-hmm. defal rek allah kulli bu dul 2STV bi dina ko ko defal ci beneen anam ak yooyu noonu. donc yàqante bi euh, jaru ko ci. mu nekk nag loo xamante ne bii nii ñun liñ ci poussé du lenn lu du conscientiser. Eh, public bi nga xamante ni mooy si kii jaarale ci wan leen naka la ñuy wotee mm-hmm. naka la ñuy defee naka la ñuy dindee mm-hmm. et tiire ko nag ci ay articles yoo xamante ne bii nii dafay nekk ay articles yu wóor aussi tamit pas di wax pour saboter politicien mm-hmm. pas di wax pour saboter benn parti politique wala di jéem a offensé kenn offensé wuñu kenn parce que représenté wuñu Macky Sall wala kii ak yooyu politiciens yi nekk ci permanence yi ñi nga xam ne ñooy nekk en contact ak population ñooñu la ñuy représenté yaa ngi dégg ci kaf ci foore des fois ñu daje affaire yi tàng kii man la waroon a parrainer pour jàngale ni benn liste mënul parrainer ñaari nit mm. te ñu bari xamuñu ko mm. yow sa carte d'identité bi waroo see parrainer deux listes te parrainer boobu nga ciy parrainer deux listes mun na indi daan ci yow mi ko def ah? Ah, waaw waaw mun nga ci am daanu kaso un mois boole ci amende cent mille francs te loolu ñu bari xamuñu ko euh, euh. parce que Modou Mbaye day nekk sama persek nekk sama waay ma rus ko pare parrainé la dem parrainé waat persek mhm. te loolu yaa ngi def danger boo xamante ne bii nii déjà candidat boobu candidat boobu bu yóbboo liste boobu ñaari candidat yi nga ne ki njëkk indi kooku la bësam di valider ki mujjee indi donc bu fekkee amul lu ëpp loolu perte na ko mooy pare parrainé boobu. te boo yow mi parrainé ñaar yëpp nga. ñu daan yoon daan la ci. donc mu nekk ay yu sew yoo xam ni ñun dañuy dem jeex ko indi ko exposer ko sur scène je pense que ni loolu Sénégal yëpp ñoo waroon ànd jëmmal ko mhm. mais pas ñenn ñi di ko xeex yàlla dogal na nag ànd nañ ci ak teg nañ ko ci loxo yu wóor muy loxo yu Moustapha Diop mhm. nekk fii nii ñëpp xam ko mu nekk producteur bu mag mhm. euh, macha allah yàlla dogal tamit mu am vision xam luy dox donte ni sax léeg-léeg mu jot ay ñoo xam ne ko naan li ndax jar na dugg mm. waaye am na vision xam na ñun lan la ñu bëgg lan la ñu bëgg def ñu ngi daje léegi léegi ci bunt bi mm. suñu sañoon nag 2S lay jàll mm. bu ko 2S yaa ngi dégg yaatale mu ñëw jàll 2S mais su mu mënta jàll tamit dina jàll ci yeneen écran yi te dafay jàll ndax mu 2S fii la ñu dëkk nag wax nekk na loo xam tamit dina arranger ministère de l'intérieur je pense pas que ni dina déranger tamit ministère de l'intérieur moo yor li ci des ñun li ñu yor mooy dem produire ñëw indi teg ko ci loxoom fu mu ko yóbbu foofu la fu mu ko jëmale foofu la bu dawulit ci moom la ndax moom lañ ko jox. kon te am nañ yaakaar ne dana ko dawal grand Moustapha encore une fois c' est jeunes engagés parce que euh, association des jeunes artistes comédiens de yëmbal. ñoo dajaloo def loolu wëlbatiku dénk ko ko am nañ ci moom yaakaar ni aussi tamit suñu yaakaar du tas ci moom moom Moustapha Diop. ndax ku mu mës a teg loxo nag. Ah. comédien bu mu mës a teg loxo. wax dëgg yàlla boo amul R plus 4 cinq am nga sa benn Range Rover di doxantu di nangam ñi fi am teraanga ñëpp teg na ci loxoom ba sa teraanga xëñ na après nga def nii. dina si teg loxo. Ah. te dina si jàpp ba incha allah fépp fu mbir mi war a yegg mu yegg fa. parce que man yàlla dogal na xaw naa ci xool tuuti rek. as dagit mais. li ma ci gis. luy conscientiser doomu aadama bi la ci lu jëm ci wàllu élection. luy conscientiser nit ki la lu jëm ci wàllu politique surtout sax. ay message yi ñu ciy lancé message la yoo xamante ni yu am solo la kon ñun askan wi ñun ñëw moom loolu te ñu ngi koy xaar te yaakaar nañ ne incha allah dina daw fii ci biir kër gi sa kër la sunu kër la ñu ñëpp ñoo ko moom te yow xam nga sa diggante ak waa kër gi dootuñu ko fi wax noonu la demee tey di kontaan ci yow ci sa teewaay waaw noonu la demee te di profité di wax ni euh, téléspectateur xëy na tey dinañ jàll diggante quatorze heures et demi la ñuy def direct ba quinze heures et demi parce que grille bi dafa changé deux dafa changé ay plateau yu bees mhm. indi affaires yu bees mhm. ay animateurs yu bees donc gars yi fël feneen donc changé grille bi heures yi changé jours yi changé maanaam xayoo léegi euh, mardi lay doon mardi lay am à de 15 heures euh, ba heures mais tay di nga ko def bandiraɓe eyi alay saago noon mi haala bandiraɓe par ce que hayo bandiraɓe jeyi non non non bandiraɓe halpulare mbiyenmi on tan ko giri o koko changé donc émission moon hayyo euh, ma ara hannde kono 14 heures et demi arata ha heures et demi inchallahu rabi en direct so benni kadi ma dañ ɗum talata kala natti wonde alkamisa parce que won komin change kadi e avancement e battande plateau uji e battande émission ngaji gardi kadi kesdi raison pour laquelle émission o joni wattate ko mardi à partir de 15 heures ha 16 heures émission moon hayo ko onon jeeyi voilà yande hawre e tellade kontanci moom bu baax a baax kontaan ci yéen ñi taamu woon la 2STV kontaan ci ñu dugg ñu bëggoon a dugg ak ñu duggul ñëpp kontaan nañ ci yéen di lañ jox dig daje lundi incha allah Yoro Sow la woon dégg ngeen message bi mu lancé am na solo maa ngi maa gën a kontaan ci yow jërëjëf kontaan depuis ci Sénégal FM ba léegi yaay suma eh, ci békaay yow laay woo ne loolu maa la ko seedeel <laughs> eh,